mbokk yi bay pam ñaa moomee moo may yéemu bay pam ñaa ak social bay pam ñaa ak dimbali néew di doole yi mbokk yi bay pam ñaa moomee andi ay surprise yu mucc ayib ci 2022 bi di dimbali néew di doole yi bay pam ñaa woon social ngir jàppale nga xamante ne xam ne jigéen la wala góor am ay jaboot te amul fu mu leen dugal fu mu def fu mu leen dundalee ba pare naa day jël ñoo ñee mbokk yi dimbali leen te yàlla rek tax cëy bay pap ñaa ak social yàgg fi yaaram bi loo fi yàgg muy gën di neex nga yàgg dimbali ñi nga xam te ne dañoo dund naa ngay fanaan ci mbedd yi bay pap ñaa boo fekk ko añu reeru jox la añu reer lekk solo la yéeram bu fekk dëkkal ci kër gu ci ayib nga jóge ci ba life bu tax nga braay gëmal li nga doon suural say noon xol ci say doom fexe dundee sa ñàkk ñàkk buum la ñànkiloo ëllëg di nga dooni mag gëm gëm ba àgg fa ñu jëm gëm gëm tax ñu soppi sunu life jàpp bañ a bàyyi gëm ni bés dina baaxi gëm li ñu gëm topp yoon bi di dem gëm gëm tax tey ñuy dund leneen gëm gëm tax duñu fàttee fi ñu jaar li des ci sunu life ñun duñu toog di xaar gëm li ñu gëm dem dori war xol ci sunuy non def lu war eskiw yenn yoon yi xoolaat fi ñuy jaar gëm gëm tax duñu rëccu luñu wessu weesu adna dañoo nandal liñu wessu weesu dañoo life jàngalaat la jàngalaat la dunia xalaat la xalaat la xoolaat la xoolaat la nit ku ne ni ngay dundé sa biir bopp life jàngalaat la jàngalaat la dunia xalaat la xalaat la xoolaat la nit ku ne ni ngay sa biir dund yow ngëm-ngëm tax ma jubale makatu kolabaan takkale sama balu yére toog di ko jaay ngëm-ngëm tax ma bàyyi kepp maan amulu may def ma dooni maket maan ngëm-ngëm tax ma mokkal sama métier liggéey fayeeku muy sama mbégte ngëm ngëm tax ma tayle sama bakkan xuus dugu ci géej gi jàll biir espagne ngëm ngëm tax ma kàttu sama pous pous diko pous naaj bi tangé man la bara ñinde gëm li ñu gëm la moy star ñu koy tek soxlu la bi jeng jeng duñu taxaw weng ngëm ngëm tax ñu tak la xassay jox suñu ru sax ci jaamu yalla yoon wi taron lol way dañu xuus jall gëm li ñu gëm la dekk bañu ñu jëm la jàngalaat la jàngalaat dunya xalaat la yaay la ñuy xoolaat la xoolaat la nit ku ne ni ngay dundee sa biir bopp laay jàngalaat la jàngalaat la dunya xalaat la yaay la ñuy xoolaat la xoolaat la nit ku ne ni ngay dundee sa biir dund nekk sa wërsëg boo xamoon fa mu nekk dinga daaw yow sa këlo baare waaye dara xëyul sotti buur yàlla moo ko nammee alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki ami internet mbokk yi nga xamante ni ñoom la sunu borom tàggat ñuy ay defkat lu baax doon ay jaami yàlla yu sell nekk ñoo xamante ni dañuy liggéey seen alal daj ci coono bu rëy waroon a jël seen ñaq wow noonu dem def ni seeni moroom dem fowee ko wala ñu demee ko soirée wala ñu demee ko ci puukare yi wala ñu demee ko ci loo xamante ni duñ ci am dara lu yàlla gërëm defuñu ko waaye ñu jël xéewal googu noonu dajale ko ba mu doon xéewal gu yaatu ñu yëkkati ko teg ko ci sama loxo ni ma sëriñ Pape defal ñu ko fi yàlla gërëm lii nag bu yegsee fii ba ñëpp di ko xool ba di ko def ñu ngi koy gisee ci jëmmi ki nga xamante ni moo di Ndeye Fatou Diop Greensboro North Carolina sama mag sama xarit sama royukaay sama sama lépp kooku moom deret la ci man ma sàkku ci yéen ñëpp ngeen ñaanal ko moo tax def lu baax dafa am solo ndax suñ borom nee na képp ku tax benn jaamub yàlla def lu baax dinaa la fay yiw lu toll ni asamaan ak suuf waye sun borom ni kep ku tax jaamu bi yalla def lu bon gisee ko ci yow ba tax mu roy ko ba def ko sun borom neena su koy duma yow moomu lum ko duma di nga am duma yu tol nonu kon nak ñaari yoon yono nonu yoonu aljana ngi ni ak yoonu safara ñi jëm safara yalla na leen yalla tek ci yoonu jàmm waye ñi jëm aljana nak yalla na leen yalla tek ci yoonu jàmm ta ñoom ci yoonu rek lañuy teggu tegu ci si ki nga xamanteni ni modi soxna Binta Diouf soxna Binta Diouf di sant képp koo xamante ni yaa ngi foofu ci diwaanu Cincinnati Ohio lii mu def nii ren da koo defoon daaw tey ñaan yàlla déwén mu def lu gën a multiplier wu ndax sun borom kat nee na ku dox jëm ci man ma daw jëm ci yow ku daw jëm ci man man naaw jëm ci yow kon suñ boroom a ngoog kii moo ñu bind te mooy ki baax ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Kebe nekk foofu ca Cincinnati Ohio soxna Bintu juuf sant gi mu ngi koy tàmbalee ci Moustapha Kebe jaarale ko ci képp koo xamante ni xaritam nga wala am di jàmmam nga rawatina nag nga nekk mbokkam ndax tey bari na ñoo xamante ni dañuy bëgg a def lu baax waaye bu ñu génnee fukki dërëm rek ñenn ci seeni mbokk jóg ni moo ne de ma ngay def fële lu baax waaye gis mbokkam yaa ngi fii torox Iblis fees dell ci ñoom solu leen di ko xas ba tayel loo ko ci lu baax lim doon def may wax ni képp koo xamante ni mbokk nga wala xarit wala am di jàmm bu encouragé soxna Bintu juuf ci jëf jii mu def yow de sax xol boroom xol bu làpp nga ndax lii sant ku rëy mënu ko ku soxor mënu ko ku iñaan mënu ko nag lii mooy sant yàlla jël sa ñaq liggéey ko fa nit ñi di liggéeyee am ni mu mettee nga jël sa alal ak na am di mettee nga jël saw ñaq daal di koy jël teg ko ci loxo koo xamante ni sax amaana boo ko gisee ci réseaux sociaux yi rek nga ko gis mu jël ko tegal la ko fi yàlla gërëm vidéo bu ñu def def nañ caméra cachée ànd ak waa baytumaan waa solidarité baytumaan gis ngeen liggéeyu rafet yi ñu bettee jaami yàlla ak xewal mais bii nii benn bu nekk ak façon biñ koy defee waaye bii nii képp koo xamante ni jox nañ la duñu génne sa kanam boo bëggee mën nañ génne sa kanam boo bëggee mën nañ génne sa voix waaye soo bëggul mën nañ la wane nii ci image dinañ dinañ fulute sa kanam ba nit ñi duñ ko xam ndax nit kat boo koy defal lu baax da koy suturaal ndax l'image reste l'homme mort mais l'image reste moo tax képp koo xamante ni ñu ngi koy defal vidéo dañu koy ñaan dañ koy laaj ci ndigalam ba mu nangu ñu soog a def vidéo bi te mbooleem vidéo boo xamante ni tourné nañ ko ci weeru koor gi bu ñu koritee ba noppi vidéo yëpp dañ koy effacé dañoo bëgg jaami yàlla yi roy jëf ju màgg ji lii mooy jaamu yàlla ci jaamam ñi kon nag mi ngi noonu soxna Bintu Diouf def na lu rëy saaku ceeb parfumé nga xamante ni onze mille cinq cent lay jar vingt cinq kilo bi butéelu diwlin bi léegi dem na ci sept mille francs ba noppi benn bu nekk mu teg ci ñaari junni ni sëñ pap ma ne ko waaw mu ni ma defal ma ko fi yàlla gërëm xoolal ma ñu ko yittewoo nga joxal ma leen ko te jëmmi yàlla tax kon ki nga xamante ni mooy soxna Bintu juuf def na lu rëy yéen ñii nga xamante ni tamit ay defkat lu baax ngeen bëgg ngeen a def lu baax te jëmmi yàlla tax roy leen jëf ji nga xamante ni moom la soxna Binta Diouf jëf roy leen jëf ji nga xamante ni moom la Ndeye Fatou Diop Guinguinéo jëf roy leen jëf ji nga xamante ni moom la nabu moom la euh, solidarité baytumaan jëf roy leen jëf ji nga xamante ni ñoom maman Rose mbay jëf nañ ko ñoom maman Khadis Silla jëf nañ ko ñoom Ndeye Aminata Tall Michigan jëf nañ ko ñoom pap ñoom ki nga xamante ni mooy Pape Makumba Mbay ah ñoom Pape Makumba jëf nañ ko waaye lii lépp bañ buñ ko defee nag wax dëgg yàlla ak sant yàlla gu mat sëkk la ak sant yàlla gu mat sëkk la di sant benn xale bu ndaw bu nekk Amérique buggul ma tudd turam waaye muy def ay collecte ngir jàppale ma ci lii nga xamante ni maa ngi koy def ma di ko sant bu baax di ko gërëm bu soowee yàlla kon mi ngi noonu dañuy tàmbali joxe bi di sàkku ci nag képp koo xamante ni doomu aadama nga te gis jëf ji ñu koy jëfal doomu aadama di ko ko jox te yàlla tax ñu ngi jëm ci korite kenn ku ci nekk war ngaa génne sa muurum koor kenn ku ci nekk yàlla dénk te yàlla dénk la alal mën nga kaa génne sa asaka gis nañ asaka yeeg muurum koor yi dañ koy yóbbu ci ay bërëb yoo xamante ni daanaka sax duñ ko def ci lu yàlla gërëm te asaka jox ko ki ñàkk muurum koor jox ko ki ñàkk waaye dañ koy dajale léegi di ko defante yaa ma neex duñ ci am sax yàlla mi nga xamante ni moom moo ko digle waaye numéro yii nga xamante ni yéen a koy gis ci bànn écran bi vidéo bu ngeen gis ma dugal ko numéro bi ngay gis ci càmmoñ bi mooy numéro ki nga xamante ni yeyoo na asaka ki nga xamante ni yeyoo na muurum koor ngeen jàppale ko te yàlla rek tax te jàppale Pape Niang ci li nga xamante ni moom moo di korité gi nu jëm ndax korité dañoo bëgg a taxawal ñaari nag ba ñetti nag amaguñ sax njëgu benn waye kuy liggéeyal yalla daw ñu rayon ben nak gëm nañ ni ren boo moytul mën nañ am ñaar ba ñet waye mi ngi des ci yeen def katul lu baax yi. mbokk yi bay pam ñaa moomee moo may yéem bay pam ñaa ak social bay pam ñaa ak dimbali néew yi doole yi mbokk yi bay pam ñaa moomee andi ay surprise yu mucc ay ci 2022 bi di dimbali néew yi doole yi mais itam ñëw ci social ngir jàppale ñi nga xamante ne mbokk yi bay Pape ñaaw ngi ci mbedd mi di wër ki nga xam jigéen la wala góor am ay jaboot te amul fu mu leen fu mu leen def fu mu leen bay Pape ñaaw day jël ñoo ñee mbokk yi dimbali leen te yàlla rek tax cëy bay Pape ñaaw ak social yàgg fi yaaram bi loo fi yàgg muy gën di nga yàgg di dimbali ñi nga xamante ne dañoo dund naa ngay fan ci nawet bi waaye ñaar nga fekk ko añu reer mu jox la añu reer lekk solo la yéen nga fekk dëkkal la ci kër gu ci ay nga jóge ci xiif jóge ci tumuraange ngir jëmmi bay pap ñaar ñooñee ak social ciy bay pap ñaar mbokk yi avec ay caméra kaso yu